dama bëgg nit ñi Sénégalais yi nañ bàyyi xel seen diggante ak seen bopp mm-hmm. te gëm yàlla xam ne réew mii la koy defar seen loxo la nekk mm-hmm. te leen dong la ñetti weer a ci des jërutul xeex jërul xuloo naqaral yeeg ñetti ñetti yëpp nag nañ ñu bàyyi mu sedd mm-hmm. xam nga demi vingt-quatre loolu def la ñoom jeexal nañ te pare nañ merci beaucoup jërë ngeen maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di la ziar bu baax a baax a di la kontaane ah euh, ci euh, noonu nga xamante noonu nga bokkee ci waxtaan wi merci aussi on avait oublié aussi ah, de préciser que ci biir euh, ginaaw bi nga xamante ne avocat yi Ousmane Sonko jàkkaarloo nañ ak waa cour de justice de la CEDEAO daal dinañ programme li nga xamante moo di délibéré bi juróom benni fan ci weeru novembre atum 2023 donc ginnaaw bi nga xamante ne avocat yi Ousmane ak

Euh, ñi nga xamante ni ñoo di euh, cour de la cour de justice de la CEDEAO euh, pare nañ daanaka seen waxtaan bi sànq donc délibéré bi nañ ko def fukk maanaam sax fukki fan juróom benn fan ci weeru novembre atum 2023 donc recours devant la cour de justice de la CEDEAO l'affaire est mise en délibéré le 6 novembre lii nag àttekat bi moo ko daal di xamle ginnaaw bi nga xamante ne Juan Branco ak maître Ciré Clédor Ly doon layal Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ne eh, dañ koo daal di eh, ñori eh, ci liste électorale li nag la ma ko jural bokk na ci ñàkk bokkom ñàkk bokk gum sax laa war a wax ci élection présidentielle yu 2024 ndax fiche de parrainage yi nga xamante ne. condition sine qua non la ngir mën a nekk candidat rek jotagu ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ça va na ngeen def. ñu journée bi. ñu ngi leen di baalu àq àq. te am na solo. waaw ah, man na wax dëgg yàlla su ma laa jàng nag bu jàngul. Mhm. waaye conseil yi ku ne mën nga ko ci xarit boobu. Mhm. su may conseil nag gis mhm. bii ñu jëm fekkee ni heure boobu la ñuy la ñuy la ñuy lay ba jox Ousmane ko dëgg. na ko na na bàyyi Ousmane tax kenn kenn du ñu liggéey na li mu war a liggéey waaye noonu du am mhm. ñooñu ko war ñu dugal ay noon benn ci man ndax man Macky Sall lépp ma woote du Macky Sall mhm. te gi génn nu rafet waaye ku mel ne man sëñ Moustapha Diakhaté mel na ñoom nga xam ne weñ nañ doon day tooy rek ñu dal te mu lu yàqu njiitum réew mi dong koy teg kon nag li laay wéri sóore dina ko ñaan lëggéey na li war a lëggéey kenn du ñu lëggéey am na ñu lëggéey am na lu ko daanu nag dëgg mhm. waaw waaw daañu dëgg léegi nag bis bu àttee si kàttan yàlla ba jox Ousmane Sonko dëgg gi na bàyyi Ousmane Sonko dëgg te Amadou moom la ñu ak soxna Sow nañ ko bàyyi ndax waan nga ko waan moom moo jógee lépp. Mhm. kon boog jàmmi réew mi rek laa bëgg ak jàmmi Macky Sall ak suñu jàmm wax dëgg yàlla kenn du la génne ko yàq mukk ngóob ñu ñu ko wër ñu ko wër ñëpp dañ ay ceeñu noonu la ñoo de. boo leen ko Macky Sall ku bàyyi Macky Sall rek ñoo ñoo tax ñu bàyyi ko. bu doon Macky Sall dong kon nag nag waxtaan ak jege naa bu fekkee ni soxnaam am na conseiller mu waxtaan ak soxnaam bàyyi na mu gën a rafetee. Mm-hmm. réew mi nekk ci jàmm mu ci jàmm yàlla na yàlla sax ci jàmm ci Sénégal mm-hmm. te képp ku ci mën a jóg waxit nga wax ak moom conseil ko mu bàyyi ndax bu dee bu dee Moustapha Diakhaté donc moom du mm-hmm. yàlla na yàlla dool jàmm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah merci merci merci merci merci beaucoup ah merci euh, di la jaajëfal bu baax baax euh, di la remercier ci euh, xalaat boobu di xaar ngeen ci 77 810 90 90 77 810 90 90 mooy numéro bi leen di may yéen ñi nga xam ne yéenay mbokk internet yi ngeen mën a bokk euh, ci euh, waxtaan wi fàttali leen ne moo di Amadou Ba ah bokk ci parti euh, Pastef moom nag am na retour de parquet ginnaaw bi nga xamante ne ni ki ajuma nga ko daal di teg loxo ca makaama yi groupe de presse bi di dee média ginnaaw nag ab émission ba mu fa doon def ñu jàpp ne moom kër gi nga ah, xam ne asalaamaaleykum internet bi jëmee ci bulletin santé bu Ousmane Sonko moom moo ko daal di biral la jàllo na ngeen def. waaw jërëjëf maa ma nekk sore sore quoi. waaw ah, noonu la noonu ba pare ak changement de heure bi heure bi ñu changé daf maa nax tamit démb. <laughs> mais il paraît que heure bi dafa changé ah man démb am na ñu bari. waaw doon woo dafa changé Espagne di kaas naan ma émission bi seetaanuñ ko seetaanuñ ko ma ne ah lan moo xew heure de changé démb. fii moom changement d'heure moom changement bi dafa léegi une heure temps lañ na rawi léegi quoi. d'accord une heure de temps la ok. waaw xëy na yàlla baax yàlla yàlla xew démb maa ngi am loo xam dama ko doon ñaawlu mooy li amoon kaw la. Mm-hmm. mu nekk lu xam ne noo ngi koy maa ngi koy ñaawlu baax a baax a baax wax dëgg yàlla quoi mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. parce que nit wóor di fajal boppam. Mm, eh, te nit bu faatoo yaa xam ne am néew la loolu yàlla rek moo moo naan nañ ko def nañ ko jox yàlla boromam muy yàlla. kon kenn amul droit dem di taal aadama. Mhm. ndax bu doon loolu Sénégal bari ñu fa ëmbal. Mhm. man waa bëgg leen topp ñu ëmbal ñëpp ñu topp leen àtte leen tamit. Ah. ñu rey leen taal leen ñoom ñëpp. Ah, ak ñi nga xam dañoo mooy. non moo koy na na yoon jaar nañ def liggéey rek comme que ñoom dañoo bëgg a ñoom ñi nga xam noo dem sulu néew bi nan dem wër képp koo xam ne biiral nga wala wala nga dem te ku dul ku dul sa jabar nan dem génn lu rey la doon lay sànnilee xeer mais xoolal doomu jàmb ji rey si zéro fi doon mi ngi tey mi ngi ne yaay ji faatu na ndeysaan jërëm nekken ñun borom njaboot laa jërëm képp ki borom njaboot na nga moytu te xam kenn xamul fan lay mujjee mm-hmm. parce que boo dee borom njaboot amee da nga ko war di moytu mm-hmm. mais xam nga kay ji léegi ñoom rey waaj léegi dañoo rey yaayam nag mu gën a garaaw léegi rey neen waajuram nag léegi mm-hmm. nit ki même li mu def moom kenn kenn rafetlu góor jigéen kenn rafetlu ko si àdduna amul kenn benn jul bu rafet xam nga ba muy dund ñu ko bàyyi di ko xool di ko seetaan di ànd ak moom mu leen di neexal di ànd ak moom di liggéey di ànd ak moom di def lépp di ànd ak moom di def lu ba mu faatu nañ ko bàyyi jox ko yàlla yàlla àtte ñoom àtte ñu ko bi muy dund mhm. ñu bàyyi ba mu dee bëgg ko àtte loolu fu mu am mais na Sénégal tegu si yoon moom maa ngi lancé loxoom laal na yoon def liggéeyam nu àtte nu jàpp ko ak ku mënti doon na A ba Z pour ëllëg ndax lii gis nga buñ ko bàyyi mu jaal nit na xuloog nit sa wa nit mere yaayam sa taal yaayam billaay wallaay mhm. maa ngi leen di ziar ba dem seen liggéey ma ñëw tamit ma doon loolu lu ma doon kii daal démb damaa dugg moo tax. d'accord aca bismillah. waaw ma ñëw tamit si kii bi gis Ousmane Sonko. ala kulli aali. Mhm. Ousmane Sonko du mu sa bokk ci élection yi. Mhm. même bu leen ñee joxoon dëgg suba sax. yàlla na leen ñee doo dëgg sax ba man mën a feccaat ma may leen ndax nu feex tuuti. ndax ndax nu feex tuuti. bu ñëwaatee fi nu nu nanguwaat ko rek mu jeex. waa léegi ma laaj la léegi léegi léegi. Mhm. léegi ma laaj lu tax euh, justice Sénégal moom mi nga xamante ne. wala sax gouvernement mhm. Sénégal moom mi nga xamante ne moom moo dem euh, CEDEAO ratifié. Euh, loi yi nga mhm. xamante ne fa lañ ko daal de voté maanaam képp koo xam ne da nga bokk ci kuréel gi di CEDEAO toll ci fukki dëkk ak juróom ñoom ñëpp ñu ratifié la nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy def foofu noonu ci wàllum yoon ak a képp koo xamante ne. sa nguur daanaka yaa ngi am ak giite ngaas ak ñenn ña daw ci dëkk ba ba ñu yóbbu la fa ñu daan la da nga war a li ni mel. gis nañ Burkina la fa xew. ñu woon na ci ñoom gine métti woon na ci ñoom Mali métti woon na ci ñoom. mais Sénégal moom ci wàllum politique. saa saa su nekk daa am ñoo xamante ne su ñu demee ci foofu noonu ci cour de la CEDEAO daanaka su ñu amee ndam su ñu ñëwee ci dëkk bi dara xaraas fu den ah may laajte ndax. moom moom la parce que am na am sa zéro zéro am na xam CEDEAO mënu koo xam ñun ñuy Sénégal képp kuy Sénégal gis nga li Ousmane ah, Sonko def képp Sénégalais mais xam nga moom ci ci yoon lay sukkandiku yoon ci yoon ñu gis ci wàllum yoon ak moo tax ma ne am na ñoo xam ne jërëm waaw CEDEAO la ko dañ ko mais na ñi dee mhm. mais kon CEDEAO day gën a yokk day gën a yokk daani ñaar ñi la dee moom moo fa war a gasagal ñooy rey président de la république tous les sénégalais loolu bu ñu ko yóbboo dossier boobu rek bu ñu ko yóbboo sédda du ko war a tëdd vingt ans wala cinquante ans de prison gis na li ñoo xam ne gis na loi mooy njëkk te mooy mujj gis na Sénégal gis na loi bi ni bañ Sénégal Sénégal moo am dëkk boo xam moo am loi dafa moom dañ moo si gën a am dox ñoom ñëpp gën a am justice bu baax mais ñoom ñëpp ñoo wax ñoom dañoo tooñ ci kaw da ngay newoon da nga tooñ ñu baal ñu baal ñu baalu la Sénégal yëpp ñëw baalu ko ñu baal ko bu ñu ko dee gënaa mais Ousmane Sonko bu dee tuul kon kan moo tooñ yow wax bi mu wax rek kañ dem rek président loolu man man tax wax man sama kër lañ may fekk ñu sama papa sama yaay bari na. d'accord tey ñaar ñi doon saaga président kese saaga rek président ah, ma lan Macky Sall xaw ma nan naa affaire gars yi jàpp am député xaw ma nan nu jàpp kii ñëw mu wax li mu wax kenn da koo ñeme wax nan rey président dem tëdd ay xale yu ndaw yu xam nañ ko ko àttee mu rey bi ay doomi jàmbur ay ñaata commercant lañ daal seen bitig yi tey ñaata nit noo dem chômage à cause de Ousmane Sonko ñu doon liggéey si bitig yi doon jaay ak yooyu yooyu yëpp Sénégal yi amul daal lu jooy naan jërëjëf mais kon ñun ban Sénégal lañ nekk am ñu ñoo nekk Sénégal boo xam Sénégal bu bu bu man la gis nga Ousmane Sonko mu këpp Ousmane Sonko bu mu wax ak ñëpp gis li mu def. ki nag mën ah, dara loolu mi ngi mel ñoom ñu ngi ak mais ku waxal yàlla nga nekk jullit ñi nga xam Sonko boo waxee bëgg naa dem àjjana xamal Ousmane Sonko lu tegu ko fenn dañoo wax ne Ousmane Sonko def na erreur mais nañ ko baal bu ñu tuddee baal ñu baal ko ne Abdoul boo tooñee yàlla yàlla maa ngi lay tuub maa la mhm. mais nit yoo indi ay problème mu saam Sénégal tey waraylu ay doomi jàmbur defal kenn kenn musuwaa di wax ñu ko leen lépp di ko seetaan naa ko kii kéré dafa am àll ngand la ku mu ñëw naa xale yi bu kenn déglu sa benn waajur bu kenn déglu benn kër Ousmane na ma yàlla baal taalin taal si à cause de Ousmane Sonko la parce que moo yàqalu xale yi ba xale lu léegi dañuy taal di def lu ne. Ah, loolu loolu ah? ay tuuma la. non non wax dëgg. loolu moom loolu moom. non dama ne dama ne dama ne gis nga jërëm jërëm. lo lo loolu moom. jërëm non mën nañ bañ a àgg ci ci ci ci euh, loo xamante ne. amul da ngay da ngay déduit rek. mais loolu kay amul benn certitude. jërëm ñuy taal waa ça Ousmane Sonko aussi. jërëm jërëm Ousmane Sonko ne bu kenn déglu benn kilifa bu kenn déglu sa benn waajur woo ko fi ñëpp di dégg ne bu kenn déglu kenn. loolu moo ko wax de moom mafia bu kenn déglu kenn ni xale def leen lu leen neex bu leen kenn bàyyi leen bu leen kenn bu leen kenn xale yëpp jóg di taal di taal ay këri jàmbur di taal ay bis mais bis mbokk yi taal nit ku bis bi ñu taal ñaata sama ñaari doom bàyyi moo ci dee. mais loolu kan moo leen jógloo kan moo à cause de kan la kan moo tax ñu jóg mais nañ wax ne lépp benn la rek li ma wax mënut kenn koo dindi nit ki bu juumee dañ ne wax dafa juum nu baal ko bu ñu ko dee baal nu baal ko mais Sénégal boo xam ne diw dafa faw rek diw dafa contre Ousmane Sonko su dina sànkoog maa ngi dund maa ngi naan man fi doon xam nga may jaaxal saa waajur di ma xas ma wala saa waajur jigéen ñaanal ma mais amul kenn ku may ñaan ma ci am lu may tiit d'accord merci léegi euh, léegi ñi nga xamante ne jàpp nañ leen te ñu ne ñoom vraiment mm-hmm. euh, këyit Euh, maanaam bulletin de santé bu Sonko ñoom ñoo ko publier mu di Fatima Kane ak euh, Amadou Ba mhm. ñoom nag ñoo ngi leen di téye ba mhm. defeer nañ leen au parquet te ki nga xam ne moo di Juan Branco moom moo wax ci làmmiñam ne euh, kayit googu la moom mhm. ko daal di fësal ci internet bi donc lu tax ñoom ñu leen di jàpp dans ce cas lan nga jàpp ne moo tax ñu leen di jàpp te pourtant ñoom dañoo partagé rek comme ni ñuy partagé ñun ñëpp ah suñu jotee ay kayit wala communiqué di ko partagé pour askan wi itam di xam ne xew ci dëkk bi naa la wax ñaari baat nga bind mi ngi mente sama doom nekk Sénégal def dara